mais également lan mo wara nek solution yi ñu japp ni nak pour xalé yi am xëy pour jigéen ñi am xëy entrepreneuriat solution la ci wara nek manam ku nek fexé ba démal sa bop solution la la ci wara nek ñu dajewoon na pour waxtaan ci lolu sotante ci ay xalaat échanger pour xol les meilleures choses à solution à apporter. wa les politiques d'emploi dañu japp ni tay ji manam dañu lajj li tax ñu lajj mooy mënuñu bi ñuy jëlee en 2019 ni dañu boole emploi formation professionnelle ak insertion jox ko kenn nit mu war a doxal te boobu ba léegi dañoo gis ni emploi dafa gën a suuxe donc am na problème problème bi nag bu fekkee am na te ñu jox nit kooku te mënu ko matal dañu war a xool li waral lajj boobu am tey ñëpp ñëpp de manière globale de manière unanime Sénégal yëpp d'accord nañ ni benn problème la Sénégal am muy xëyu ndaw yi est-ce que ñiñ ko jox mën nañ ko regle bu fekkee mënuñu ko régler dañ xool ñeneen ñu ko jox ñu mën ko régler ndax xëykat ñàkkum xëy mënul xaar ndaw nga toll ci sa diggu doole war a am ci loo jàpp war a liggéey war a teral say waajur fii ñu dëkk nii ay yëmbal ñu bari dañoo teel a bàyyi seen jàng li tax ñu teel a bàyyi jàng mooy dañu bëgg dimbali seen waajur léegi yow bu fekkee da nga bëgg dimbali say wajur té amo moyen boo dimbalé amo liggéey boo dimbalé amo lo apprentissage bo mën def pour dimbali ko loolu ça pose problème donc nous pensons que dañ japp ne actuellement ni état warna jang jàng defaat benn geste, def benn jangat diagnostiqué xol lan moy problème bi li tax ñu laj lenn la mënoo xey xey ni da ngay génné da ngay employé 400000 mille personnes wala da ngay dugal 8 euh, euh, milliards wala 10 milliards wala 450 milliards te yow au préalable waxo yow xaalis bi nga njëkkoon dugal foo ko fu mu nek waxo yow projet yi nga njëkkoon def programme yi nga njëkkoon def fan la mujj yeen moy njeexital yi donc bala nga wax lolu da nga won jangat ba paré donc li moy wane ni ba tey teewaguñu ci yoon bu wayé ni dañ dinañ dinañ dinañ dem benen chose bi may insister moy ñun dañu nek zone bo xamanteni ñu bëgg dañu téla baye jang yow nga xëy ni da ngay recruter ña ngay recruter bu fekkee man jànguma nu may def du bokk ci recrutement boobu wala aw ma droit bokk ci recrutement boobu wala boog ñi nga xamante ne xëy na seen niveau jàng dafa wàcc suuf ñoom sorowuñu est-ce que ñooñu état warul leen recruter wala boog warul teg ay structures yu mu leen recruter mieux encore est-ce que état mën na jël ñëpp état mënul jël ñëpp entreprise privée yi fi war a nekk pour jël ñëpp est-ce que entreprise yooyu jox na leen doole. donc autant de questions yoo xamante état du Sénégal war na ci répondre avant bu fekkee bëgg na régler la question de l'emploi waaw audit mom, dañ ñun ñëpp de manière unanime sénégalais boo laaj danaan la xaalis bi ñu dugaloon ci fu mel ni DER te gisuñu résultat wata état war na laaj fan la xaalis ba dugg su fekkee deux dëgg milliards yi ñu wax dugal nañ ko foofu ah ñun dans le département de Pikine ñu ne def nañ fi huit milliards ñun de gisuñu ko donc kon bu dee huit milliards yooyu dugg nee nañ dugal nañ ko fi te gisuñu ko nañ ñu wax fan la xaalis bi dugg te niñ ko defee au devant niñ ko war a defee pikin noonu lañ ko war a defee yeneen département yi ba mu wër Sénégal yëpp donc problème bi war a njëkk am moo ñu xool saytu xaalis bi fan la dugg buñ ko amee ba pare ñu xool lan moo doxul ñu sanctionné nag ndax gis rek ni kii doxalul ñu wàcce ko day yomb sanction il faut mu am il faut que état bi di sanctionné ndaxte da ngay gis fii ku fi def ab njombe Quelques temps après nga donc aussi nañ ci aujourd'hui en fait là vous parlez de de l'actualité des jeunes on le sent tous il y a partout de, la réclamation de l'emploi tout le monde réclame l'emploi l'emploi mais comme je dis euh, c'est une initiative qu'il faut prendre à l'individuel mais il faut au préalable que qu'il y ait, une, façonnation, donc une formation au préalable pour pouvoir donner euh, des résultats. Donc aujourd'hui, avec euh, l'organisation qu'on a assistée aujourd'hui, vraiment on a une réponse. Il faut qu'il y ait la culture de l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait la culture de l'entrepreneuriat pour donner une solution aux problèmes qui existent aujourd'hui. Voilà. Tout à fait, derrière, c'est l'État qui pilote tout il faut derrière euh, l'accompagnement de l'État, bien, bien, bien, bien, sûr. Euh, donc c'est une formation doublée euh, de l'État, mais aussi, aussi, aussi de partenaires. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des partenaires qui prennent l'initiative vraiment pour booster quand même ce secteur-là.

indiwaat maanaam dimension religieuse du travail pour jàngal maanaam liggéey maanaam du mu nekkee benn euh, poñ bu mag boo xam ne jox nañ ko pour que nga xam ne mi ngi liggéey nu mu ci war a séddee suñu borom parce que loolu mooy tax bu am barke loolu nag dafay tombe nag bu actualité abee foog nga tudd ko te mooy ñàkk xëy liggéey ñàkk xëy ndaw yi ndaw yi surtout loolu nag entrepreneuriat la état mënul jël ñëpp.